nag mooy que malheureusement jusqu'à l'heure où nous parlons sa situation ne s'est pas aussi très bien améliorée que cela bien vrai que médecins yi ñu ngi def lu ñu mun ñu ngi koy suivre boo gisee man sax bokk na ci lu gisuma lu tax gisuma ko mhm. ndaxte tamit médecins yi dañ ne euh, instant yi dafa soxla reposer wu pour ñu gën ko mun a suivre mhm. moo tax ñu restreindre visite yi ba ñenn ñi ñu dem gis ko te situation bi tamit nag c'est vrai que c'est une situation très déplorable très très déplorable ndaxte jàppoon nañu Sénégal egg nañu foo xam ne waruñu woon egg fenn yi ci politique. Mhm. ndaxte nit ki boo xam ne dem na ba ci biir tribunal mu am fa benn malaise nit ñi laaj ba médecin ñëw mooy xam ne médecin bi koy suivre di ko ausculter ci biir tribunal expliquer ne que dafa soxla pour ñu yóbbu ko seeti ko consulter ko en urgence. Mhm. mais malgré cela la gendarmerie bañal ko loolu. obligé jël ko dugal ko ci fo ci camion blindé delloo ko këram egg këram tamit médecin mi ne ko il faut ñu bàyyi ko mu dem mu os ñu suivre ko mais ñu bañal ko pendant plus de six heures de temps mm-hmm. ce qui veut dire que euh, loo xam ne li peut-être mënoon nañ ko gérer ci en un temps plus court sa peut-être ça aggrave la situation. Ah, mais li ma bëggoon xam mooy euh, lan la exactement euh, lacrymogène yi mu noyyi la produit bu ñu ko sotti la bousculade yi la xëccoo yi lan lan moo ko dal. xam nga du lacrymogène. du bousculade parce que bu fekkee lacrymogène la président Ousmane Sonko xam naa bu mu nengee ci bu mu nekkee ci géew politique bi ba léegi yàgg nañ ko sànni lacrymogène mu mhm. soo leen dégg mu naan am na ci lu ci mel ni dal na ko fekkee bousculade la yàgg nañ ko bousculer mhm. pas plus tard que la dernière fois bu ñu jëlee otom bu ñu tojee vitram la dernière fois tamit bu convocation ba le passé tojoon nañ ko ba force mhm. bousculer ko yóbbu nañ ko mais bii le problème c'est donc pour l'instant on ne connaît pas quelle est la teneur de ce produit mhm. boo xam ne moom lañ ko sotti buñ ko sottee te seet même pas lui xam nga fekkoon moom kese la sax ñu wax waaye daf ko dal dal euh, maître maître xam nga mhm. ñoom ñëpp ils sont dans la même situation actuellement te peut-être ñoom pour l'instant peut-être si ñoom la manifesté wu mais mun na sax peut-être ñeneen ñu nekkoon ci oto bi affaire manifesté wu parce que y avait le président Ousmane y avait le maître Ly mais y avait son chauffeur et d'autres personnes qui étaient ah. avec lui dans la ndax jël ngeen seen ay dispositions parce que ni nga ma ko expliqué nii euh, leerul en fait war na war nañ ko mën a leeral par rapport fu ngeen ko yóbbu ndax am ngeen ay médecins de confiance wala je sais pas ay spécialistes yoo xam ne xëy na mën nañu wax après euh, lan la réellement non fu ñu ko yóbbu pour les euh, fu ñu ko yóbbu am nañ ko confi am nañu dama ne am nañ ko confiance parce que mhm. dama jàpp ne les médecins d'habitude ñoom ñëpp dañoo am benn serment bu ñu prêter. da ngay am benn présomption de bonne foi. ci médecin yëpp ak médecin bu mu mënta doon. Mm-hmm. te tamit il est accompagné par son médecin personnel. yoo xam ne ñu ngi foofu ak médecin yi koy suivre te fu ñu ko yóbbu tamit c' une structure boo xam ne qui est reconnue pour son sérieux mm-hmm. au Sénégal dans le dans ces pareilles situations. mais lu ñu ci mun a wax rek mooy pour mun a am tous les détails il faut qu'on attende ba médecin yi def liggéey mm-hmm. ba mu leer ba la. su boobaa nag ci la ñuy gën a mun a am yenn position mais benn position daal boo xam ne au moins à l'heure où nous parlons mooy que on sait que am na loo xam ne un produit dont on ne connaît pas la teneur mm-hmm. boo xam ne sotti nañ ko ci kawam qui a produit ces effets là produit boobu nag pour leur à l'heure où nous parlons mënuñ la wax tel type de produit la tel type de produit la tel type produit la ba léegi ñuy wax kenn mënu la wax ban ah, produit la mais communication bi ngeen ci amal Euh, est-ce que du am effet euh, contraire bi ngeen bi ngeen bëgg maanaam communication bi c'est pour alerter euh, mais aussi certains peuvent y voir une manière habile voilà de détourner l'opinion de faire de la politique pour utiliser ça en votre faveur détourner l'opinion par rapport à quoi faire de la politique par rapport à quoi maanaam que ne Ousmane Sonko alhamdulilah il va bien am na sax journal bu ko titré ce matin ñaaxul ne gis nga ko le malade imaginaire foofu laay waxee en fait xam nga président Ousmane Sonko dama lay laaj Mamadou pour Sénégal yi ñuy seetaan yépp bu mu commencé politique ba léegi ñaata yoon lañ ko dóor gar grenade lacrymogène bari na est-ce que mus ngeen dégg mu naan sax dama amee liw sëkkët muy wax le muy wax naan lii dafa may metti mhm. ñaata yoon lañ ko bousculer mu soo leen dégg muy ñaxtu mu soo leen ko dégg muy ñaxtu naan lii ak lii ak lii daf ma dal xam nga xam nga ñenn ñi peut-être dans leur tête lu ñuy wax malade imaginaire c'est plutôt imaginaire dans leur tête xam nga ku xam président Ousmane Sonko ku ko xam bu baax xam ne c'est quelqu'un ki ne fuit pas devant ses responsabilité tey jii nii bu ko dara dalul woon day dellu keroog bu ko bousculer toj vitre voie otom génne ko delloo ko këram de force ngoon bi ñun ñëpp gis nañ ko dafa génnaat këram naan day dem defi conférence de presse am. Mhm. yi dóor ko ay grenades lacrymogènes ba doyal ba ñun ñëpp ñoo gis image yi buy garde rapproché am naan ko solal masque sax moom dafa bañ ne du sol max masque de protection. Mhm. mais comme que ay grenades lacrymogènes la le lendemain kenn déggul mu naan dama feebar ak lii daf may metti ak lii may metti mais cette fois-ci. si on dit le président Ousmane Sonko c'est un malade imaginaire xam nga est bokk symptôme te ñoom ñaar ñoo toogandoo woon ils étaient ensemble côte à mhm. côte donc est-ce qu'on veut dire que maître Clédor que lui aussi c'est un malade il n'a rien à voir avec la politique c'est un avocat qui fait son travail est-ce qu'on veut dire ñun ñëpp nous avons suivi hier euh, l'information qui a été donnée par maître Khoureyssi Ba par rapport à la situation de maître Ly et c'est dans la même situation que se trouve le président